بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه mbokk yi ñuy déglu te déglu rajo Walfadjri FM 99 kaddu gi di bàyyi ko fii ci sa kër kër ci Ndakaaru ñoo leen di nuyu di leen def ndokkeel di leen ñaanal jàmm ñu sàkku ci yéen itam fu ngeen toll ngeen ñaanal jàmm ñu ngi ñaanal way feebar yi yàlla saafara leen ci anam ak wér di ñaanal ñi nekk ci tiis ak yi ci prison yeeg yi ci mu'taqilaat yeeg yépp yàlla jox leen ak uññi ba ñu dellu ci seen njaboot di ñaanal way tukki yi yàlla xaar leen ci seen njaboot te ànd ak ñoom te may leen lañ doon wuti ba ñu dellu si ak jàmm ghanimina salimin di ñaanal way kër kër yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ñoom ñëpp yàlla barkeel seen yëngu ak seeni i dal Eh, di ñaanal suñu way dawlu yu yàlla xare leen aljana ti yërëm leen mbokk yi ñu ngi woon ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak eh, seen xarit oustaz Assane Diouf demoon nañ ba ñëw ci xareb xaybar ba jeexal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam atam juróom-ñaareel ca gàddaay ga ci la dellu si Makka nag ngir fay umra bañ ko tere woon ca Hudaybiya ba far mu jaari xaybar euh, foofu nag ba waa Màkka déggee ne mu ngi ñëw rek ah dañoo daal di génn dëkk ba bàyyee ko fa yonent bi ñëw def umraam keroog umra bi waxoon naa la ne doon na daw bay génnee ay waggam di génnee mbaggam ah, ndey ndax booba yéefar yaa ngi naan ragal na ne Muhammad ak ñi ànd ak moom léegi dañoo néew doole waaye ba ñu génnee seen mbagg yi daw ba ñaq nag ci ñett ñetti tawaaf ya dañ xam ne kon ñi eh, lompañu guñ loolu mooy dëggal la yàlla waxoon yonent bi ne ca Hudaybiya ne laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilxaq la tadaxuluna almasjid alxaram insha allahu aminin muxalliqina ruusukum wa muqassirin la taxaafuun fa alima ma lam taalamu fa jaala min duni dalika fatxan qariba te waxoon naa ne ba qarib mooy xaybar gu ñu ubbi gannaaw gi am na xare bu tudd muta benn dëkk la boo xam ne mu ngi ci Shaam ci fu naan Balqa yonent bi yónnee na ci yónnee na fa demul kooku juróom-ñetti at la ca gàddaay ga xare bi mu yónni gi yoon nag ndaw a ko jiite muy Zayd ibnu Haarisa ah, gannaaw bu ñu déparé bi ñuy waaj a départ yonent bi ne leen su ngeen demee Zayd ibn Haarisa moo jiite xare su daanoo ñu rey ko na Jaafar ibn Abi Talib jël njiit gi bu daanoo ñu rey ko na Abdullah ibn Rawaxata jël njiit gi ma ne mbokk yi kon ku ne xamoon na ne ñooñu danañ shahid foofu ndax li yonent bi ne bu daanoo fa in usiba zaydun fa jaafarun wa in usiba jaafarun fa Abdullah ibn Rawaxata ah, kon ñu xam ne xare bu metti la booba lañ xam ne eh, Mouta dana metti ba xare ba génnee ba dem Cham dajeeg nag Hiraqli lañ doon dajeeg buuri Rome te booba julli ñu ñetti junni lañu Hiraqli nag téeméeri junniy gawar la indiwaale muy téeméeri junniy gawar kon Hiraqli mel ni ñu génn na eh, téeméeri junniy gawar te yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog mu ngi mel ni eh, ñetti junni yooyu rek lay yeble kon mu ngi mel ni mbokk yi ñuy déglu xare bu tam nekk na xare boo xam ne bu metti la comme niñ ko waxee keroog nag eh, ci ndeyjooru xare bi maanaa ci may mën a muy ci aile droite bi eh, kenn ci bani Uzrata moo ko jiite woon mu ngi ñu ngi tudd Xabtata ibnu Xatadat ci el gauche ci wàllu càmmooñ ibayata ibnu malik ca saar la woon mu ne foofu nag fa la nit ñi ñaari xare yi daje Zayd ibnu Haarisa te jiitu yore drapeau yonent bi di xeex ba ñu rey ko Jaafar ibnu Abi Talib daal di ñëw jël euh, drapeau bi euh, xeex ba ñu rey ko Abdullah ibnu Rawaxata daal di jël drapeau bi di xeex ba ñu ko léegi nag xare bi daje daal di diisoo nag ne ana kan mooy jiite gannaaw bu ñu jiite Saabit ibnu Arqam Ah, kooku nag ah, moom itam bay moom itam mu daal di def tanazul mu démissionné daal ne moom daal comme ku toll ni Xaalid ibnu Walid ma ngi ci xare bi daal kon moom lu def lu may jiital Xaalid foofu la Xaalid ibnu Walid jiitee affaire ba daal di xeex xeex ba métti lool dañ leen ëpp doole gannaaw ga daal maanaa boobu xare mu uta dañu dàq saxaaba yi ñu dem Irisam daal di am échec dellu si Madina mu ñu war ba ñëwee yonent bi ne dégg naa ne Zayd ibn Haarisa te moo yoroon drapeau bi xeex na ba ñu rey ko mu shahid Abdullah ibn Rawaha ko mu xeex ba ñu ko mu shahid ñii ñëpp nag ak ñëpp ñu yore woon drapo bi euh, yàlla dana leen di yëkkati yóbbu na leen aljanna ci nañu nekkee mu ngi mel ni kuy nelaw noonu muy gisee euh, nekk ci lal boo xam ne lalu or la noonu la ñu nekkee ñu ngay nelaw mu ne man sax gis naa Abdoulaye mu rawaxata euh, lalam baa ngi euh, jaayu ak moom ak ñaar ñi mu àndal ñu ne ci lan ñu ne euh, wéy gi ñu wéy ci ndigalal yàlla ak it Abdoulaye keroog bi ñu ko jiitalee dafa xawoon a def taraddut xawoon a déng déngi tuuti moo tax lalam baa ngay xaw a jaayoo ak moom waaye gannaaw ga nag mu dal di wéy ci xare boobu kon xare moo te lu metti la moo tax Hasan ibnu Saabit wéy na ci wéy yu bari mun ma leen a indi ma nga naan ta'awwabani laylun bi yasriba asaru wa hammun ida ma nuwima annaasu mus'aru li dikra habibin hayya jalliya ibratun safahan wa asbabul bukaai tadakkuru maanaa jooru na ca moom waykat bi ay way yu bari ngir fàttaliku xare bu métti bi gannaaw xare bu moo ta mbokk yi ñu déglu yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na nag di seet buur ñetti buur yi yëlif àddina mu bind leen ay lettre di leen woo jëmee ci diine loolu ko dise ñetti buur yooyu mooy empereur bi nekkoon Rome empereur romain yi ah, nga xam ne Asie yëpp moo ko yore woon ak tuuti ci ci Europe bind na itam Héracli nga xam ne ah mooy buuru romain yi nga am empereur ah, Roumanie mooy Héracli nga xam ne moo yore Asie ak lu bari ci Europe. gannaaw gi bind na kis Kisra ibnu Hurmuz muy buuru perse yi muy faris fi ñu naan Iran tey ak la ko wër mu bind leetar Najaashi muy buuru Habasha ak Afrique yëpp nga xam ne kooku ñetti buur yi kii moo yoroon Europe ak ak dara ci Asie kii yore benn mocc bi ci Asie kii yore buur buuri àddina yooyu ñett la woon yonent bind na ku nekk la di ko jëm ci yàlla léegi nag loolu moo tax yàlla waxoon ko ne. wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nadira walakinna aktar annaasi la yaalamuun suratu saba la ci nii la yonent bi yónnee ay lettre dal di sàkk nag ay ambassadeur yónni leen ci ñetti buur yu mag yooyu ku ci nekk mu jox la bataaxel saaba bu rëy ba Dihyatul Kalbi moom la yónni ci ambaratoriyatul Roumanie mu yoree lettre yonent bi lettre bi maa ngi koy liir bismillahi rahmaani rahim من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسين أي الفلاحين في القرى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun lii mooy lettre bi yonent bi yónnee ki nga xam ne moo di empereur bu Rome yi Dihyatul Kalbi moo ko yónni woon gannaaw bu mu tuddee yàlla daal di ko woon ne jàmm daal mu ngi ci ki topp njub daf maa ngi lay woo ci lislaam mooy jébbalul ci lislaam nga mucc su boobaa yàlla jox la ñaari yool euh, ñaari yool boo jébbaluwul nag bakkaaru baadole yeeg béykat yeeg yëpp yaa koy gàddu ndax bu li boo duggoon ñu dugg daal dina yàllaa ngi naan ñëw leen ci baat bi nga xam ne noo ko bokk mooy buñ jaamu lu mooy yàlla buñ ko sàkkal morom eh, bu ñenn ñi def ñenn ñi yàlla su fekkee du ngeen bañ nag yéen waxal ne ñun de ñu omatu lañ jëm ci yàlla ama lettre ñaareel bi mu ngi ko yónnee buuri Faris muy buuri perse yi muy fi naan Iran tey yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku mu yónni Abdullah ibnu Xuzafata ibnu Samin jox ko bataaxel ne ko jox ko Kisra Hormuz Kisra ibnu Hormuz lettre bi maa ngi koy liir bismillahi rahmani rahim min muhammadi rasulillah ila Kisra ibnu Hormuz azimi faris salaamun ala man ittaba alhuda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh وأدعوك بدعاء الإسلام فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويعق القول عن الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن اسم المجوس عليك def ne ko gannaaw bu ma tuddee yàlla lettre baa ngi jóg ci jógee ci Muhammad mi yàlla yéen jëm ci Kisra ibnu Hurmuz buuru Perse yi muy Faris di Iran tey mu ne maa ngi lay xamal ne jàmm daal moom nekk na ci ki topp am njub rek te gëm yàlla ak ab yonentaan te mu seede ne amul benn buur lu ma yàlla moom daal amul aji bokkaale ak moom te mu seede ne Muhammad mi yàlla ko yónni maa ngi lay woo ci wooteeb yàlla di la xamal ne man la yàlla yónni ci ñëpp nag ndax ma waar leen xamal leen di di waar képp kuy dund balaa moo dee waaye baatu mbugal wàccit ci ki nga xam ne moo weddi nekk yéefar na nga jébbalu dugg ci lislaam nga mucc soo bañee nag mboolem ceddo yu ñuul yi mboolem majjoos yi seen bakkaar yaa koy gàddu lettre ñetteel mu ngi ko yónnee Habasha muy Afrique mu jox ko doomu baayam Jaafar ibn Abi Talib muy doomu baay taxam cousin direct mu ne ko xam nga Jaafar lettre bii la yóbbu dem mu dellusee ci la dem ci xarab Mawta foofa la shahid Jaafar ibn Abi Talib moo yóbbu lettre ba ca Najashi lettre baa ngi maa ngi koy liir bismillahi arrahmani arrahim من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصهم ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه wa nafaxahu kama xalaqa aadam bi yadihi wa nafaxahu fa inni adcuuka ila allahi waxdahu la sharika lah walmuwalaatu ala taacati fa in tatabictani wa tu'min billadi jaa'ani fa inni rasulullah faqad bacastu ilayka ibna ammi jacfar wa nafaran macahu min almuslimin fa ida jaaka fa aqirhum cindaka wa da tajabura fa inni adcuuka wa junuudaka ila allah faqad ballagtu wa nasaxtu faqbalu nasihati wasalaam ala man ittaba al huda muhammad rasulullah mu ne ko lettre bi mu ngi jógee ci muhammad mi yàlla yoon jëm ci najaasi buuru xabas ah, na nga jébbalu dugg ci diine ah, ndax man maa ngi sant yàlla ci yow yàlla moom mu sell te moom jàmm moom sécurité te sapp mbir yëpp man day maa ngi seede man muhammad ne isa ibnu mariam ruuxu yàlla la te di baatam bu mu sànni ci mariamul battul mu teey mu sell mi mu daal di ëmb Isa yàlla bind ko ci ruuxam nga wal ko ca nii yàlla bindi aadama ci loxam ya wal ca ak ruuxam man de maa ngi lay woo ci yàlla moom daal amul jën aji bokkaale ak ñi ñëpp ñu bokk méngoo àndante ci topp yàlla soo ma toppee nga gëm li nga xam ne lay indi na nga gëm ne man yàllaa ma yónni ndax yàlla yónni na ma ci yéen ñëpp man nag ki ma yónni ci yow sama doomu bay tax la muy Jaafar ibn bi Talib mu ngi ànd ak jullit yu bari buddi bu dikkee ba ci yow daal na ko saxal sax waay bu baax ci yow te nga bàyyi rëy rëy lu nag eh, ndax man de maa ngi lay wooyee ak sa soldaar yu bari yi jëm ci yàlla te maa ngi xam le ne jottali naa li ñu yónni woon laaya naa la biir nangul sama laaya biir kon jàmm yàlla nekk ci toppam jub ñooñu dañ ci gën a siiw ndax ay buur lañ waaye du ñooñu rek la bind bind na yeneen lettre ci yeneen buuru àddina yi comme Muqawqis azimul Qibt ca Égypte buuru Égypte Muqawqis yónnee na ko lettre nasaraan yi nekk Najraan yónnee na leen bataaxel xaakim buur ba nekkoon Amman yónnee na ko lettre ak ñëpp yëpp yi nga xam ne ñu ngi doon dëkk ci li wër aljazira al muy île d'Arab wala presqu'île d'Arab amaan Najaashi moom tontu na lettre ba tontu loo xam ne lu rafet la dal di tuub dugg ci diine ji loolu mooy wax ji gën a wér amaa mu xaw xis moom dafa yónni yonent bi ay kado muy ñaari gune yu jigéen ay jéebéer ak ay malaan yu bari euh, ak baax la bu muy war boobu moo tuddoon dul dul euh, buuru euh, faar perse moom ku rëy la woon buuru faris ku rëy la dafa jël lettre bi xotti ko ñeppati ko sànni ko daal di jël ki mu yónni woon gëdd ko Kaysar nag buuri Rome yi muy empereur bi moom dafa daal di laaj arab yi ndax am na ay arab yu ñëw ci dëkk bi ñu ne waaw am na ñu fiy jëgg si de fii ci Cham mu ne wool ma leen ñu woo leen mu ne waaw yéen arab yi lay jógee boori Makk kan moo ci gën a jógee Muhammad ci askan Abu Sufyaan man la Kaysar ne ko waaw jege ma mu jege yenn arab it jege toog ci gannaawam di seet ndax day fenam déet Qaysar ko waaw yow noo tudd sax mu ne man may Abu Sufyaan ibnu Harbin mu ne waaw waa jooju woote yonent ci yéen askanam nu mel ci yéen mu ne yii askan wu rëy la ndax noo bokk lépp Abu Sufyaan ne ah, ñëpp ñu daan yónni it seen askan daana baax Qaysar ne ko ndax moom ay baayam daanañu woote ab yonent wala ak nguur ndax su loola amee dama naan nguur ak baayam rek lay laaj Abu Sufyaan ne ko déedéet ah Qaysar ko waaw ndax jooju mos ngeen ko tuumaal ne ab fenkat la woon ba ba tey bu ko wootee ñu mën ko weddi Abu Sufyaan ne ko déedéet mosuñ koo xamee fen Qaysar ne ko ndax ay baayam amoon na ci ku nekkoon buur bu loola amee ñu naan nguur laaj ah ko déedéet ah ko waaw moom. ñun ñu tedd ñu baax ñu rëy ñee koy topp wala ñu doye di ñi mu ne ñu ñëw doole yi rek kay ñoo koy topp mu ne ko waaw ndax ñi koy topp moom yow Abu Sufyaan wax ma koy topp dañuy dolleeku wala dañuy wàññeeku Abu Sufyaan ne moom ñoom kay dañuy dolleeku rek empereur bi ne ko waaw ndax kenn mas naa dugg ci diine Muhammad moomu le gannaaw ga mu murtat ngir bañ diine ja ah mu ne ko déedéet Abu Sufyaan ne ko déedéet Kaysar ne ko waaw ndax moom bu amee kóol rek kenn day war Abu Sufyaan ne ko déedéet ñun sax nag fi mu nekk nag ñoom ñoo ngi am ak moom benn kóol rek xamuñ ne fan lay mujj mu ne waaw Qaysar ne ko waaw yow Abu Sufyaan eh, ndax dangeen di xeex ak moom mu ne ko waaw Abu Sufyaan ko waaw Qaysar ne ko su ngeen daan xeex ak Muhammad nu mu daan mel ñu ne xare ba day ci suñu diggante daan nekk si jaal rek bu teyee nu gañe ko bu ëllëgee moom it mu gañam rek man la woon mu ne waaw baax na waaw moom nag lan lay lan lay leen di woo lan lay woote jëme ca mu ne moom kay danaan jaamu leen yàlla moom daal bu leen ko sàkkal bokkaale de de de daf ñuy tere ne li suñ bàyyi doon topp di ko jaamu buñ ko jaamu dinañu digal nag julli ak dëggoog saraxeeg fegoog matal kóoloreeg ak joxe kóolore ñàkk wor lii daal la ñuy digal fii nag fi la Hiraqli da empereur bu bu Rome yi dal di xam ne kii kii li muy woote ak yu ak ak yonent la adraka Hiraqli amrator rum anna hadihi nubuwatun xaqiqa wa anna Muhammad hada nabiyu nabiyullahi wa rasulihi ila nnaas Hiraqli booba la dal di xam ne kii kat ñuy wax Qaysar ne kii ñuy wax kat man léegi wóor na ma ne mooy yonent xeet wi mooy yonent dëgg-dëgg la loolu daal ah, boobu nag la ko Hiraq li ne ko yow Abu li nga ma tontu te wax ma ko day buy dëgg waa ji nguuram geeg yonentam gi dana jot si bëcc ci fii sama fi nga teg sama tànk bi fii kon loolu mooy rasaayil yi mu doon yónni ci muluk yi mbokk yi ñuy déglu gannaaw loolu am na benn xew-xew boo xam ne bu rëy la ñu ko tuddee Fathu Makka loolu ci xew-xew yi rëy la ci taarixul islam su ngeen bëggee xam dara ci Fathu Makka nag kon eh, bu leen kiitee na ngeen neggandiku tuuti ngeen del si dana ñëw ak yéen ci Fathu Makka alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu eh, maag yéen ñëpp nañ bokk gërëm Oustaz Assane Diouf ñu leen koy jottali ci jëbo ji waaye ñu ngi ñëw ci li nga xam ne moo di Fathu Makka eh, Fathu Makka ubbi la gu échec la ñeel yéefar yi ak ñi ko jiite woon échec la ñeel jàmbaari Quraysh yi ak kàngamam ya ak kilifaam ya ak dirigeant ya ak damm itam goo xam ne dañ koy damm xëyma ak valooru xiram yi nekkoon nag xam nga ne Makka amoon nañu trois cent soixante ci ay xiram yàlli Quraysh yi trois cent soixante la ñetti téeméer ak juróom dañ ko daan jaam di ko selal bay yàlla mi leen bind yàlla mi yelloo ñu di ko jaamu yàlla mi nga xam ne jën yaa ngi koy jaamu ci lëggum géej yàlla mi nga xam ne ñu ngi koy jaamu ci garab ya yàlla mi ñuy jaamu ci xunte yàlla mi ñuy war a jaamu ca njalaxtani yàlla mi ñuy war a ci jëpp jamono ak bépp makkaan Quraysh bàyyi nañ ko di jaamu ñetti téeméeri xeram ak juróom-benn fukk moo tax fatu Makka looloo ko tax a jóg pour bëgg jeexal loolu mu nga amoon nag ca atam juróom-ñetteel ma ca gàddaay gi ñaar fukki fan ak benn la woon ci weeru koor u barkeel ndax fekk na jullit ñi am nañ kattan lool fa te kattan li am mosuñu am doole ju tollu nii gannaaw bi nga xamee nii jàmbaar ju mag ji amru ibnul aas fexe na moom itam bi mu tuubee te moo njëkk a tuub mbokkam ya ndax mbokkam bi mbokkam yi Muawiya ak Abu Sufyaan ñi ngi tuub ci fatu nag amru ibnul as moo leen njëkkatu amru ibnul as fekk na delloo seen wegeel ak lislaam ci wàllu Sham yëpp na ko dugal leen ci lislaam am na géer yu bari yu ci dugg yàlla ak kër-këram ak njàmbaaram ci bani habs bani murat bani zubyaan bani fazarat bani sulaym bani ashja ñu ñëpp ci njàmbaar ak amru ibnul as moom moo leen delloo si ci lislaam ndax ñoo ñu bokk na ci qabaayil yii nga xam ne dañoo murtad dañoo murtatoon te dana ñëw ci kanam ne ñooñu dañoo murtad ci xilaafa Abu Bakar ni Sadiq si la ñu waxoon na ko ci semaine yële ñu nga xam ne ñooy al murtaduun ñooy qabaayil yii wante mbokk yi eh, fatu Makka lan moo ko waral Quraysh dañoo fasante yonent bi kóolare ca Hudaybiya ne duñ xeex ak moom bu xeex ak ñun di ref fukki at daldi ne loolu ñu signé moom nag jërug arab bu ci bëgg a dugg làqu ci nun bokk na Muhammad du ko laalati waaye gi arab bu ci duggit làqu ci Muhammad ñun duñ ko laalati loolu nag tax na ba bañu xusaata dal di ñëw làqu ànd ak Quraysh ci loolu Banu Bakar ibnu Waayil ñoom it ñi ñëw làqu euh, ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam banu xusaata làqu nañ ci yonent bi Banu Bakar ñoom itam làqu nañ ci Quraysh bu fekkee ni banu xusaa ñëw nañ làqu ci yonent bi banu bakar ñu waayil itam ay ay ñaari giir yooyu mosuñoo jubo ñu làqu ci Quraysh ndax ñam ay mbañe la ki xeex doxoon na seen diggante lu yàgg ñu dem nag ba yàgg rek banu bakar ñi nga xam ne Quraysh moo leen doon aar ñoo doon xeex ak banu xusaa tamit yonent bi làq ñoom ñoo ñëw dal di war gis benn waay ci banu xusaa ñu daal di jàggati daal di ko rey te la kat ba ñuy dal ci Banu Bakr ba ñuy ci Banu Xusaa te ñoom Banu Bakr booba Quraysh yebal na ay gannaay ak i góor ki Ikrimati ibn Abi Jahl moo woon ca Xandaq ak waxamaane Quraysh yi bañ ñëwee ñu dal dal ci euh, euh, ñu ànd ak Banu Bakr ibn Waayil dal ci Banu Xusaata rey ci ñu bari ba loola amee nag Banu Xusaata dal di yebal mbooloo ñu ñëw ci Yonent bi di ci wut ndimbal nekk ne ko kat ci yow leen làqu woon sunu noon ya làqu woon ci Quraysh ñëw nañ war dal ci suñ kaw rey ci ñu bari ba jàggati nañu daal te Quraysh bokk na ci di leen dimbale ci la yonent bi yónnee nag ci Quraysh dal di yónnee ci Banu Bakr ci seen bopp ñu leen léegi daal yetti yëf daal laa bëgg benn ñi ngeen rey ci Bani Xuzaata ngeen def fidya jot leen ngeen jot leen joxe alal mu mel ni déye lay doon ci ñu ñaaroo ci xusaa ñaareel bi bu ngeen deful loolu ngeen bay seen xulafaaw yi euh, banu xusaata ñu fayu ci ñoom ñu ngeen coaliseel ngeen bay leen làq leen banu xusaata fayu ci ñoom ñu ñaar ñetteel ba bu loolu abul nag ah ngeen xam ne kóolare ga ma fasante woon ak yéen ca Hudaybiya kon tey yàqu na pas-pas jeex na wax ji nag mu àgg ci Quraysh Quraysh ne bañ gisee charte yi yéen wax ñu ñu lànk ñetti charte yëpp bañ lànkee ñetti charte yi nee na ñoom duñ làq yi Banu Bakar xusaata fay ci ñoom nee na ñoom joxee joxe fidya daal di jotu dee pour ñu dee ñu ñu rey eh, ñu wax daal seen wax yoo xam ne li muy tekki mooy war nañu yonent bi ne kon nag in lam ba bani xusaa fala unsar su ma dimbalewut bani xusaa ñi làq woon ci man yàlla bu ma yàlla dimbale ci waxtu woowu nag ci la yonent bi dal di woo julli ñëpp nag ñu daje si Medina woote boo xam ne bu matali la mu ne dogu naa nag ci damay dal ci Quraysh ndax war nañ ba Quraysh xamee ne ni yonent bi dogu na ci xeex ak ñoom ñu ne loolu kat xatar la danger la bu nar a ñëw ci ñun ñu ne kon nañ yónni suñ kilif gi Abu Sufyaan tey day amul ambassadeur tey buur bi ci boppam mooy dem ci yonent bi euh, jéem a nooyalanteeg moom ba mu ñàkk takk xare ñëw màkk amaan na loolu dina ko mën a dindi comme gorom la Abu Sufyaan di war wàcc Madina ñëw ci kër Yonent bi dugg ci néeg doomam bu jigéen Umu Habibata xam nga moo ko jur waaye Yonent bee ko doon denc mu bëgg a ci lalam bi doom ji ne ko papa doo toog ci sama lal bi kat ndax yow sobe nga yéefar nga te lii lalu Yonent bi la Abu Sufyaan daal di mer ba génn néeg bi ne ko atargabina bi Muhammadin anni yow Muhammad moo la gën a léegi sa baay mu neen bàyyi di loolu lal bi ki yàlla yónni la ku laab la ku sell la kon yéefar bu am sobe bu ca toog Abu génn ne doomam ma ngay diri eh, ak ñigam ab sëram eh, dem nag di seet nu muy def ma ngay wari kibaaru saxaaba saxaaba yu mag yi ci muhaajiriin muhaajiroon mu yaakaar ne bu leen gisee danañ mën a wax ci yonent bi daal eh, jël seen sentiment ba kóolóore gi daal des yonent bi ñàkk ñoo mag waaye jéem na comme dajeeg nga ne ko loolu du sama dem na ci kër dem na ci Omar sottiwut ah noonu la delloo màkk nag nekk ko xam ne ku perte la waaye ku jàq la ku tiit la bu mu ñëwee Quraysh yedd ko lool ne ko da ngaa war rek moo tax nga am échec loolu moo tax Abu Sufyaan dem ci xërëm ba dal di ci kanam di ko wan ne ko wóoruma xërëm bi yow yàlla ji maa ngi sujjoot ci sa kanam di la xam ne wóoruma nii la Abu Sufyaan nii nag la ñu waajalee ah la yonent bi waajalee pour xeex ak Quraysh ubbi ci mag foofu nag Xaatim ibn Abi Baltaata saaba bu mag la woon mu bind leetar Quraysh di leen xamal ne yonent bi na mu ngi jëm si ci yéen mu ngi ko joxoon jenn jigéen ah, joo xam ne zainata la tuddoon ndaw si da doon dem mag rek mu daal di ko ko yóbbante ndaw si dafa jigéen ju xaw sàggan ah, nekkoon na ci mag di def yu xaw a yemaay yi ak yeneen góor yi ñu di ko ca fay ba léegi nag mu ne léegi ñàkk naa amatul lu mu lekk mu ñëw Madina ñëw ci yeneen bi ne ko euh, man amatuma dara yeneen bi ne ko ah, mi nga xam ne boo ñàkkee da jaay sa bopp mu ne ko kan laay jaay sama bopp sama far yëpp rey nga leen euh, ca Badar ak ca Uhud ak ca Xandaq dama kenn man kay aw ma dara yeneen bi may ko ñeneen may ko nag muy ñibbi ci la xaatu bind lettre jox ko ko mu dugal ko ci jubbam dem war a waxal Quraysh ne euh, yonent baa ngi jëm si ci yéen waaye yonent bi yàlla xamal ko ko mu ne Ali ibn Abi Talib àndal ak Zubayr ibn Awaam daw leen ba ngeen àggee ci déggu xaax da ngeen dem ndaw suñu naan Zaynata dégg nga bu ngeen demee eh, ma nga yore benn bataaxel nangu leen ko Xaatib ibn Abi Baltaata mi bind lettre bi nag ah, ndekke da leen doon xamal rek eh, ne yonent baa ngi ñëw jubluwu ci sax wor dafa bëggoon ñoo ñu amel koy kóolare alalam ya fa nekk ñu sàmmal ko ko noonu la Ali ak eh, ba ñu agsi ci déggu xaax dal di jot ndaw si ñu nekk jox ñu bataaxal ba mu ne yoruma dara ñu jéem jéem mu bañ ñu taxaw ba yàgg ne Ali ne yonent bi xam ne zaynata ngi ñibbi mu xam ne rawdatu xaax lañ koy dabbee mu xam ne mu ngi yore bataaxal kooku du fen ne ko léegi daal boo génnee lettre bi danañ la summi def la yaramu neen foofu nag la ndaw si sireeku génnee lettre bi jox leen loolu mooy lettre xaatib ibn abi baltaata boobu ulamaawu taarix di wax waaw bu nga xamee ni lii am na nag yonent bi woo ko ne ko waaw yow lu tax nga def lii mu ne wallahi ya rasulallahi ma xayartu ma baddaltu walakinni kuntu imran laysa li fil qawmi min aslin wala ashira man baw mu sama diine waruma waaye Quraysh aw ma fa mbokk aw ma fa giir aw ma fa askan te sama alal la nga fa ma yaakaar ne su ma leen waxee ay secret eh, danañ ma dencal sama alal waaye te xam naa ne loolu du yàq ci sa mbir dara ndax yàlla moo lay defal fekk am na ci saaba yi ñu naan Omar naan ko yonent bi jox ma rek bàyyil ma dagg baatam bàyyil ma daggal baatam ndax kii naafiq naafiq naafiq la yàlla ne Omar wa maa yudrika laqad ittala ala ahli badrin kii fekkee na xare badar xanaa yàlla xamalu la ne ñii demoon badar yëpp dañ leen wax ni i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yàlla nee na ñëpp ñu fekkoon xare badar def leen lu leen neex yàlla baal na leen ba sottal ci la yàlla wàccee aaya ji nag ni yaa ayyuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya tulqawna ilaykum bil mawadda mooy suratu al mumtaxana nii la yonent bi génnee Makka googu yoon nag ma ngi ànd ak fukki junne nit ci jullit ñi lépp li wër Medina arab yëpp jóg nañu ànd ak moom ñu nekk ci diine ji ci waxtu woowu nag ba ñëwee ba Rabix fa la ñu taseeg Abbas ibn Abdul Muttalib ma ngi doon gàddaay di fekk si yonent bi ci Rabix waaye bu ñu tasee ci Rabix nag yonent bi ne ko dellul dañuy ubbi ji Makka waaye yaa abbas anta axirul muhajirin yow yaay mujjëg ñëpp ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañoo gàddaayi anta axiru al muhajirin wa ana awalu wa axirul anbiya lii la waxoon abbas ba abbas waññeeku ama abu sufyaan mbokk yi ñu déglu ba mu gisee nag ne yonent bi ak seen a makk xare yu bare bare bari dal di booloo dal di wër nag li nga xam ne moo di makk moom abu sufyaan mu laaj ne li la abbas ne ko toskere nga dee nga wallahi laqad jaaka muhammadun yowma bi jayshin ka amwaaj al bahri aw ka leyli fi lkatra maa ngi lay jëñal ne yonent bi tey ñëw na andil na la andil na la tey xare boo xam ne dafa bari ba mel ni guddi dafa bari ba mel ni eh, buusu géej xaw ma foo jëm yow day alku rek foofu nga jëm aba su yaan ne léegi abbas lan mooy pexe mu ne xanaa boo gëmee yàlla nga dem ci yonent bi rek nga tuub mu ne lu ma fa yóbbu mu ne ko maa lay yóbbu boo jébbaloo dugg ci diini ji rek da nga daal di mucc nii nag la Abu Sufyaan yaan di àndee ak Abbas Abbas toog togg ko ci baxla bu yonent bi bu ñu ñëwee fekk nañ xare bi fukki junne yooyu lee fukki taal la junne bu dañoo toog ci benn béréb campé taal fab taal di di naan attaaya di def seen caay yi kenn xamul ak yooyu ak seen i gaaw ak yooyu léegi nag taal bu mu romb rek ñu ne kii kan la. ñu ne Abbas la bàyyi yonent bi naa moo war baax la yonent bi ñu ne jàmm rek la di ko def di ko def ba ci taal taal bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteel fa la Omar ibn al-Khattab nekk mu ne kii kan ñu ne kii day Abbas la bàyyi yonent bi moo war baax la bi ñu ne loolu baax na Omar de waaye Abu Sufyaan noonu yàlla bi mu ngi ci mu ngi ci gannaawam xaaral ma daw jiitu ci yonent jox ma ndigal ma dog baat bi ñëw na yonent bi yàlla baa ngi nii di ñëw laa bëgg nga jox ma ndigal ma rey ko rek mu ne bàyyi ko amoon na yàlla da koy jubal si ñu bàyyi Abu Sufyaan bu mu ñëwee ci yonent bi daal di sukk yonent bi daal di ko dóor ci dënn bi ah da koy jas bu rek ne ko Abu Sufyaan xanaa doo daytalu ba nag Abu Sufyaan xanaa doo dellu gannaaw nag Abu Sufyaan xanaa doo gëm ne yàlla ma yónni mu ne Muhammad musuma am sikk ne yàlla la yónni musuma am sikk ci ne yàlla la yónni waaye nag bu fekkee ne Quraysh yëpp dañ fay nekk bu fekkee ne Banu Hashim ñoo yore drapeau bi Banu Hashim ñooy meeru Makka Banu Hashim ñoo odd Kaaba gi banu hashim ñooy red drapeau bi banu hashim ñooy duy sam-sam léegi ak yeneen ti ñëw itam jëm ci banu hashim kon Quraysh la ñuy lu ñuy jël lii de moo taxam ne bañ waaye musuma am sikk ci ne yàlla la yónni ndax yow doo fenn dëgg rek ngay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah nii laa ba seen ibn Harbin buuri Makka duggee nag ci lislaam Abbas ne yeneen bi Abu nii na ngay gis nit la koo xam ne ku bëgg àddina la nit la koo xam ne ku dëgg la damaa bëgg na nga jox ko teraanga yonent bi ne kon nag bu ëllëgee nañ yéene ne ku dugg kër Abu Sufyaan mucc nga ku daw làqu kër Abu Sufyaan kenn du la rayati ku dugg kaaba gi kenn du la rayati ku toog ci sa xeexuloo kenn du la rayati nii la yonent bi agsee Makka ci ëllëg sa ëllëg sa nag di ñaar fukki fan ak benn ci weeru koor yonent bi séddale xare fatu Makka bi dal di ne aysar mooy el gauche mu ne Zubayr ibn al-Awwam moo leen di jiite na duggee Makka ci kadaa ci kaw janaahul ayman mu di aile droite mu ne ñooñu Xaalid ibn Walid génn yàlla gi moo leen di jiite na duggee Makka ci suuf waaw fekk na Xaalid tuub euh, mu ne nakam léegi nag bu fekkee ne ñiy jógee Kudayla ci wàllu euh, sow jant Saadu ibnu Ubadata na jiite ñoom it ñeneen ñu juddee duggee ci wàllu sow jant ci wàllu penku nag Abu Ubaydata Amir ibnul Jarraax amin hadihi al mooy jiite ñooñu le ñii la ñu duggee màkk nekk nag ñeenti kuré waree màkk fu nekk am ñu fa duggee nag fas yaa ngay ñiixal coow laa ngay kii rëpp rëpp nag pënd baa ngay dugg bu sëri ne keroog boo seetee euh, màkk ke pënd ba ca màkk daal keroog boo ko gisee na fas yee duggee mu ngi mel ni tey timis la zunna annal ghudu wa minha isha suba la yor yor la waaye da ngay yaakaar ne ngoon la ndax pëndi fasu xam nga fukki junne doomu aadama fu ñu dugg war fa ay fas di ko ruppatal pënd ba dañu bari kon ñii la yonent bi duggee màkk pour ubbi ko nag ñii la ko préparé tam ci wàllu euh, technique yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla doog na keroog moom xeexul ak kenn dajewul ak kenn waaye Xaalid Walid rek moom moo dajeeg ay nit baray ca xam naa loolu dafa bëggoon a dëggal lii yonent bi waxoon ni ca Uxud euh, ni wallahi bu ma yàlla dajalee tee ak Quraysh danaa métital ci ñoom euh, fanweeri nit muy njotal Hamzatu moo taxit Xaalid ibn Walid moom moo fa mu duggee woon moo dajeeg banu Bakr ibn Waayil ñi nga xam ne ñoo waroon yonent bi te waroon banu Xuzaata ñoo fi réewoon kóolare te seen njiit keroog moo ke seen njiit la nga xam ne mooy Abu Sufyaan ibn Harbin jébbalu na dugg ci diine ji Ikrimatu doomi Abi Jahl keroog la ti ti tuub dugg ci diine ji ay kilomètre rek mu ngi ànd ak Suhaylu ak Safwaan ñi ñëpp eh, daje nañoo ak Xaalid waaye Xaalid mooy ki nga xam ne tey boobu Ikrimata kere la tuub waaye balaa moo tuub fekk na daje na Xaalid ci xare Xaalid duma leen ñu daw Xaalid keroog rey na ci ñoom ñu bare bare bari muy mutatarrifuuna yi extrémiste yi nekkoon ci Banu Bakr yëpp keroog Xaalid moo leen rey keroog nag xaalit dugal na ci lislaam loo xam ne lu bari la waaye rey na loo xam ne lu bari la ba ñu ba yent bi yéene ci moom ne nekkoon na segu nag doy na doy na doy na doy na xaalit dellu si keroog ñu jàpp nag Qurayshi ñu tugul yëpp ak xanaa ñu tuboon sax ànd ak yenent bi ñu jóor leen nag ñu wër kaaba ga yenent bi daal di xutba xutbaan discours am bu rëy ba ne ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ala kullu damin أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمي قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة واستقاية الحاج يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم طلقاء صلى الله عليه وسلم yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóor waa Makka yëpp dal di xutba xutbaam discours am bu rëy ba dal di ne leen yéen nit ñi yàlla moo leen bind ci ku kenn ku góor ak ku jigéen muy Aadama ak Hawa mu def leen ngeen nekk di ay cël ak i giir bëgg ngeen xam ne ku gën a tedd ci yéen mooy ku gën a ragal yàlla bépp deret bépp alal boo xam ne borom nga ko doon woote fii ci mag yàlla def na ko tey moom ci suufi sama ndëgg yii xanaa lu may rek di wadd kaaba geeg ak di root sam-sam loolu am na ñu ko yore woon nangoo gu ma ko waaw Quraysh lan ngeen yaakaar ne moom laa koy def ci yéen ñu ne ah jàmm rek leen yaakaar ci yow gune gu baax doomi ku baax mu ne kon dem leen booyal naa leen defuma kenn jaam lii lu ñu tënkee la ci xutba ak yonent bi Abu Quhaafa bàyyi na Abubakar ni Sadiq keroog la ko Babacar indi ne yonent bi góor gu bon gu yéefar gilee dafay tuub ñoom mu daal di tuub keroog ba baa ngi wax tal yonent bi su ngeen demee weexaayu bopp bi na ngeen ko soppi ci leneen waaye bu leen ci def nag lu ñuul foofu la ulama yi jëlee ne ñuulal kon baaxut waaye fuddan loolu la gaañu daan def fekk caabi kaaba gi nag eh, Ali bin Abi Talib yonent bi ne ko demal jël ko ci Ousmane ibn Tulhata ibn Abdiddar ndax may yéeg ci kaw eh, ci biir kaaba gi mu dem Ousmane bañ mu ne doo ko jox yonent bi yàlla bi mu ne bu ma gëmoon yàllaa ko yónni ma jox ko góoma loolu Ali ne ko carax xam nga Ali nag ni mu meloon ndaam ak dakk la bopp baa nga set wecc dund baa ngi sëq kawar yaram mi yëpp sax dañoo sëq ba ci gannaaw génn ndodd bi yëpp dafa sëq kawar lépp nag bopp bi leel xaañ mu di ndaam ak dakk goo xam ne gàttul bu ëpp waaye ñoolul te diggante ñaari mbëgg yi dafa sore lool ali na waa ji caraax yéen ko nekk ko bépp ci suuf wàllu loxo bi moom Ousmane ibn Talaat ibn Abdou Dar daal di jël caabi ji tibb ji tijjil yeneen bi mu dugg ba yeneen bi duggee ci gaaba gi ba génn nag ali ji caabi moom duma ko ko dellooti bi ne ko delloo ko ko kóolóore la ci moom la nekkoon te inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha mu dem nag sànni ko caabi ne ko am naroo ci woon a jot bu fekkoon ne bëgg na yonent bi moo ne naa la ko delloo ndax kóllëre la kon duma la ko delloo mu ne loolu la wax mu ne waaw yàlla sax ko wax de mu ne kon seen diini ji baax na Usmaan ibn Talhata nii la ñëwee ci yonent bi an laa ilaha illa wa annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lii mbokk yi ab tënk la bu tuuti ci fatxu makka al muy xeex boo xam ne bu doy waar la ci la yàlla waxee nag ne ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diini laahi afwaaja fa sabbix bi xamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawaaba kon fatu makka ngoog kon suratu nasre ngoog saar wi kon madiniya la yal na yàlla def ci nun dégg toppa def ko ci yéen kon ñu ngi bàyyi kaddu gi ak jotaay bi ak oustaz Sidy Lamine Niass incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu